internet yi senclic point comme ñu ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant tey ñu ngi si kàcce Grand Yoff euh, Taïba 1 ñëwoon benn koñ bu ñu nekk koñ doole ASC doole fekkoon ay ndaw yu fi yu fi fi nekk jëloon initiative def kafe chaque weeru koor tey mu nekkoon dernière journée ñu yaataloon seen ndogu tey euh, tey ñu fekkoon tey si kafe gi euh, Ibrahima fay di ko laaj tey si dernier jour weeru koor bi ak lan lañ fas yéene def tey bisimilah Ibrahima waaw avant tout maa ngi nuyu waa koñ bi di sant ñi ma bokk ak café bi di bokk ak ñëpp ñoo xam ne ñu si ñu jàpp si kafe bi depuis le début dëgg na métti woon trop bu ñu doon commencé métti woon trop fi ko dërëm bi nga amoon sax dañuy teg kafe mais yàlla dogal ne mais yàlla mu ñu seetaan chaque jour kafe bi dañ koy teg dañ koy teg ba jour dernier moom yàlla yàlla dina bu indee xéwal rek yàlla baax na moom. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp fi mooy café gi fii la ñuy wax euh, Firdawsi moom lañ ko tuddee daal maanaam daal firdawsi wala waaw gars yi ñoom Ibera ngi sama yeneen gars yi ñu ngi fi café gi yaatu na waaw chaque année nii lay demee nag day am ay ndogu am lépp ci biir mais bu demee bay waaye jeex na ñu def benn maram bi du kër bu ndaw séddale ko jaamu yàlla yi yóbbu ci jàq ji xam nga daf ay xeetu baax yoo xamante ne ci jëmu Serigne Touba rek moo tax ñu koy def quoi mais uduñ ci dara loo xamante ne pour neex nit kila lu neex suñu borom la neex Serigne Touba rek moo waral loo ñuy def lii quoi ànd ak boo xamante ne nag ba day saawoon baawoon ba faw nag fu mu mënta dem rek waaw ànd na ak sëñ Touba waaw. ngi seen site bi tamit seen clic bu baax ñu ngi koy bu baax tamit lu ñuy def nice na quoi waaw jàpp na ci baax a baax ci biirum café gi. ok nuyu naa leen ku nekk ak santam di leen gërëm di leen sant waa lii de moom defe naa ne c'est des années léegi xale yi di ko def wax dëgg yàlla macha allah koñ bi jàppoon nañ nekk benn xale yëpp génn nañ jàpp nekk benn ba jour premier jour koor ba fin wax dëgg yàlla dañuy teg café te wax dëgg yàlla macha allah seen doole la ñuy génn. tey jii nag moom ñeen dañuy fermeture dañuy togg ndogu jox waaye yàlla yi ñu lekk ba suur ñaanal leen ci jàmm ak salaam yàlla leen yàlla may wér ak wér la may leen gudd fan may leen booloo doon benn koñ bi ñëpp nekk benn macha allah lii moom neex na yàlla na fi gën a bëri gën a yokk tey macha allah. waaw ñu ñëw tey e, si café waa café Firdawsi ñu ànd ak seen benn jigéen boo xam ne mi ngi seen wet depuis kañ mi ngi seen wet koor gi bu mu tàmbalee ba léegi mi ngi seen wet. tey nag mu jëloon cin bi nag ne tey foog mu def moom tamit ah, ndogu boo xam ne tamit ndogu spécial la muy Awa Seydi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa café bi yëpp yëpp yëpp ku si nekk ak sa tur ak sa sant café bi xale yi wax dëgg yàlla baax nañu wax dëgg yàlla depuis kooku mu commencé ba léegi téye ñu see loxo benn yoon jàppale nañu waa koñ bi ñuy def ba mu baax wax dëgg yàlla sama ndékki maa ngi jaay ndékki wax dëgg yàlla ñoo ma doole ñoo ma jàppale wax dëgg yàlla ñuy tourné te jënduñu si man. café bi moom ñu ngi fii ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si tey gars yi dañoo génn tey jàppale waa koñ bi ñu jóg si xale pour jàppale leen ñu ñëw def def ndogu ni jox gars yi ñu lekk nii ñu ñaanal leen gudd fan ak wér-gu-yaram yal nañ ko fekkee at yi bëri bëri bëri bëri incha allah merci. mbokku internet yi senclic point com euh, tey ñi fi ñëwoon tey gis initiateur yi li xew fii nii tey initiateur yi ñi ñoo ko ñu ngi nii ay xale yu ndaw xale yu si koñ bi. am jombodee depuis weeru koor bi lañ ko de ba tey ñu ngi si kawam bàyyi ñu xaddiwuñu benn yoon te seen doole lañ génnee def ko ngir yàlla tax bisimilah ina wali yàllaahu gannaaw bu ñu euh, santa yàlla julli si yonente bi sant suñu ñaari waajur di sant Serigne Touba bu baax a baax waaw di naan gone yi tey li li fi am nii tey du guléet lii dañ ko yàgg indi dañ ko yàgg dañ ko yàgg euh, dañ ko yàgg jaayante jaayante bi du tey jaayante bu yàgg la woon te xoolal demuñu kenn tàllal ko loxo ne ko seen doole li ñu génnee def ko ngir jëmm yàlla suñu borom ndax yàlla dafa ne yàlla dafa ne si alxuraan ne ne génnee ñam rawatina si weeru koor moom a gën a tabax junniy jàq kon loolu dañ koy santaat bu baax a baax di sant waa koñ bi bu wërëwër ndax lii bu amee tey ba mu ba ñu nangoo ñun ñëpp ñuy defar café ñu ñëw di jël waa koñ ñoo tax waaw di sant suñu waajur yi fi nekk yëpp ak suñu mag yi leen sant bu baax a baax di naan xale yi nii fi ñu jàpp foofu la Euh, lii fayum yàlla la du fayum kenn kuy joxe ñam ci weeru koor yàlla sunu borom moo lay fayal boppam directement kon lii nañ ci gën a santaat yàlla bu baax baax di gën a ko initié ay jàmbaar lañ ay góor yàlla lañ ay baay faal lañ waaw dañ leen di dooleel ñun ñun nag seen i mag ñu ngi seen ginnaaw dañ leen di dooleel bu baax a baax lii nag yàlla na nekk xolal ndam ak teraanga yàlla na nekk lu kawe seen njotu waaw liñ ci yéene yëpp yàlla na suñu borom def ko muy xam muy loo xam ne dafa gën si ñoom waaw di sant Serigne Touba bu baax baax di suñu wasila di Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni di ko bu baax baax waroon saa asalaamaaleykum mbokku internet di seen clip point com euh, ganaaw bu ñu ñëwee fii sunu mbër bi muy Fourrière ñëw si ko ñoom tey andil ko ay xéwal tey waaw fekk leen tamit ñoom tamit ñuy def loo xam ne moom la sunu moom la yàlla santaane tey ñi ngi wax tey bis bu mujjanteel bi tey lan la si yëg tey ak tamit ban mbégte la am ba ñu débuté koor gi ba léegi ñu nekk si kafe gi ak doomu ndeyam ñu nekk si biir koñu fii nii muy koñ Lumba Baye Fall yi nekk fii nii waaw ñi ngi ne ñu ngi def li yàlla santaane ñu ngi def li yàlla li war li war si weeru ñu war si weeru koor gi ñu ngi koy def te ñu ñoon fii seet si mbër muy Fourrière di doomu Grand Yoff nag di doomu Grand Yoff dëkk fu dëkk koñ Lumba waaw bëggee naa leen baay di rafetlu initiative bu baax a baax a baax waaw yéen tamit di leen delloo bëggee tamit ci teraanga yi ngeen ñu indil tamit waaw lu ñuy yëg ci euh, mujjanteelu koor gi rek mooy maanaam dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah maanaam koor moom koor koor moom ngëneel la ko waaw dañ ku si nekk da ciy jéem a sàqu rek yàlla fulal fulal ñu yàlla nangul ñu suñuy suñuy euh, suñuy jaamu yàlla quoi te nangul ñu suñu koor. leen bëggee bu baax a baax waaw mbër moom lu ñu mën a wax si moom bëri na ndax booy ba am respect la te yaru na moo tax tamit ay magam tam du koy gunge nekk ay xaritam nekk léppam daal. mooy loolu fu mu lu mu bëgg rek ñun tam ñoo ngi si ba mu jeex tàq tàq te ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu nekk champion Grand Yoff ñun loolu rek la ñuy ñaan loolu rek la ñuy ñaan incha allah affaire nag rafet na trop li ngeen def moom dafa nice trop trop loolu laa doon wax sans glace ko booy moom lu ñu def nice na trop trop ñun lii ñoo ko waroon sax def waaw ñoom njëkk nañ ñu ko def waaw lii du dara lépp benn la sant yàlla la rek kay. Badou muy doomu nday Fourrière tey mi Fourrière foo ko gis tey di seen Badou ci ginnaawam. waaw tey ñu laaj tey eh, baru tey lan la gis tey si mujjanteelu weeru koor gi nii ak kafe gi lan lan moo waral teewaayu kafe gi fii tey. salaamaaleykum waaw maa ngi leen di nuyu gars yi Baye Fall yi waaw ñu kontaan si yéen si at at lu mi ngeen def nii nu kontaan trop waaw ñun moom ñoo ngi nii di bëggee Baye Fall yëpp waa fourrière doon fourrière Grand Yoff xam nga waa Grand Yoff ñëpp yaakaar ko am fuñ ko teg waaw mu ñëw nekk booy boo xam ne tam booy bu kul tam booy bu neex a neex booy bu neex a waxal waaw ñu kontaan si moom lool ñu kontaan si moom lool lool trop trop xam nga ñun moom ñoo ngi fii si kafe gi waaw ñu dugg si bisimilah di si ñaan yàlla ñu génne si alhamdulilah rabbil alamin tamit di ñaanal Fourrière tamit lépp lu mu bëgg si carrière yàlla def ko waaw ñu wan ne ko si waa Grand yëpp ñoo ngi si ginnaawam waaw di kontaan trop tamit si li ngeen def tamit mooy loolu waaw. Musa